Moustapha Gueye mii kuy mbokkam jàppale ko te yàlla tax. Naby Vision. ndax ah, su demee ba wax ci sëñ Touba ñu ne déetewaay mu ne mën na ne sax moom mooy yàlla la bokkaale yàlla subhanahu wa taala euh, sëñ Moustapha Moustapha Gueye Moustapha Gueye Moustapha génn ci li nga nekk Moustapha dangaa toll ci jóg dem daani sa doole. Mustafa, da nga tollu ci ñu lay jubanti lii man du samay mbir waye nak da nga wax lu wax lu waxul di def lu deful kep kuy mbokam taxawal nga wax ak mom ndax gu jubanti ndax lii mu wax lii mu wax ah ah baax nañ ko rahmatullah auditeurs yi maa leen di bëgg di leen siyaat leen ñaanal jàmm xale bii dana taal réew bi xale bu xonk cur heure boo kénnee di wax waxi dof wala ngay wax waxi réewande ci espace public bii ki an ay mbokkam te ñoo nëbbu téléphone am bi nëbbu leen téléphone bi kii dana taal réew mi de ñi ngi interpellé kilifa yi nga xam ne ñoo dëkk Touba nañ bàyyi xale yu ndaw yi wax waxi dof di ko jaare ci sëñ Touba sañ Touba li mu woote liggéey jaamu yàlla gu leer nañ Naby Vision la sëñ Touba woote liggéey ak jaamu sunu borom subhaanahu wa taala te bañ ko bokkaale kenn loolu mooy la sëñ Tuubaa woote te moom la yonante bu tedd bi alayhi salaatu salaam woote xale bii nag ngeen bàyyi ko mu wax waxi dof dégg ngeen li mu wax ci yonante ak li wax ci yàlla ak yonante bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam jël leen ay matuwaay ci moom nangu leen téléphone am bi nëbbu leen téléphone bi yóbbu xale bi ca daara ja mu dem jàngi kii bi mu fi juddoo léegi mënu fi am xam-xam sax ba taxaw di wax wax yu rëy yii barke alxuraan léegi nag Sénégal dañuy bay bayal loo xam ne mën naa taalum réew te kii fii saagoo fi kilifa diina maa ngi jégalu ci kàddu wala mu wax fi wax ju ñaaw kilifa diina nit ñi duñ jóg te jot na sëkk nit ñi jóg sëñ Touba jaamub yàlla sunu borom subhaanahu wa taala la doon liggéeykatub yonante bu tedd bi alayhi salaatu wa salaam loolu la sëñ Touba woote ngeen bëgg a jël sëñ Touba képp ku bëgg bës rek di ko jaar ci sëñ kilifa diine yi surtout ñi dëkk Touba nañ jóg wax ci xale bu ndaw bii. te kilifay booy bii nan nangu téléphone am bii yóbbu xale bi ca daara ji mu jëm jàngi kii dana taal réew mi de procureur nag lii am nga ci liggéey booy bii jël leen ko teg ko ci yoon dana taal réew mi nangu leen téléphone bii te yóbbu ko ci daara ji mu dem jàngi kii dana taal réew mi de ah, waaw baax na. asalaamaaleykum wa rahmatullah moo bëggoon a wax tuuti rek ci suma benn frère bu ñuy wax Kona euh, mu nekk suma frère bu nga xamante ne dama koy suivre. Hein. Nabi suivre. Vision. peut-être je ne suis pas à 100% avec lui et puis c'est loolu mooy àdduna sax quoi mais euh, parfois damay adhérer aussi ci ay vidéo mi nga xamante vraiment dama ci ànd ak moom rawatina nag bi mu def bërki démb ci suñu sang de tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous sommes dans un pays musulman, à 98-97, je sais pas, de la population sénégalaise est musulmane. Nous sommes un pays où nous donc, comme nous sommes à 98% musulmans, nous avons tout les monde sur le de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. nous wax lépp lum leen digal ngeen def lépp lu leen tere aussi ngeen bàyyi ma gis vraiment Sénégal neexul ba neexul mais bu ñuy xool ku amul bàjjen Sénégal man pour man sang bu tedd bi la parce que Sénégal moo nekk dëkk bu nga xamante ne Naby Vision ku nekk fi nga féete doo nangu ku ko laal mais bu ñu xoolee tey Seydina Mohamed ñan ñoo ànd ak moom ñan ñoo féete ci côtéem ba saa yuñ ko waxee luñ ko warul wax walla ñu def ko ñu taxaw ba nit ñi xam ne ñii la ba kenn dootu ko ñeme wax walla nga di ko xalaata wax lu dul noonu sax wala nga koy def gisumako parfa parfois rek nga gis ben nit ñaari nit te pour man euh, warna am ñi nga xamantene ni mu amé fu nek ñi ñi sauvegarder di aar nanguwuñu ko laal fiñu fété war am ñu nga xamantene dañuy féete fu nga xamante ne du ñu nangooti kuy taxaw di wax ci moom lu nga xamante ne xel xalaatu ko barki démb seetaan naa booy bi kii kii gis ngeen ko Naby Vision on le laisse man je mu pose la question kii ana ay waajuram bu fekkee ne ay waajuram mënuñu ko canaliser mais war naa mën a am ñu nga xamante ne dañ koy woo mu ñëw ñu teg ko ci ànd booy bi bu nekkoon beneen réew bu dul Sénégal dootul wax te du moom rek ñu mel ni moom ñu ngi ne gàññ ci senegaal jël seen kilifa teg ko ci kaw parfois sax ñu ne moo bind yàlla ñu bàyyi leen senegaal gis nga réew mi defar ko dina jafe trop wallahi al azim réew mi defar ko dina jafe parce que réew mu nga xamantene ne joxuñu cër ki ñu sàkk joxuñu cër kim ñu joxoñ ba paré bëgg jox ñeneen cër jubandiko dina jafé trop. alaykum wa rahmatullahi taala barakatuh ëllë ji lox lox mi gëna mama gën tay nak sax nuyu ma ma Samba ak ma Demba ak ma jodi ndjay ci señ boy la jëm señ boy sa géñëm na sa doomu nday la koy wax señ boy ana say bay ak say yaay ak say de wojur boy fi nga taxaw yow wax ne Serigne Touba. fi la la fekk génn jamono bala fi lii nag say bàyyi la ci ba ak say yaay la ci ba ak say maam. ñaareel bi yow suñ booy ma diggaan nga ne mel na yow rek yaa mës sa mooy yàlla. Naby Vision ñëpp a mës a mooy ñun na ñoo yor xel di wax yaa yor sa xel kàddu di wax waaye dun dañuy xalaat yow léegi comme dag ñoo indi la suñuy baay boole nga ko ci kon sa baay nu mu def ana sañ mbokk nu mu def ñoom tam dañuy mooy kon booy. bul bëggi vi ak bëggi wax tax ngay wax lo xam wuro ko wax ñun dañuy xalaat heure bu waxee lu jooru dañ lay toog yow señ boy yow ya tax sax yoonu murid ñu yam ñu boy xol ndax benn li nga wax dañuy jàppale yoonu murid dañu jang jëngut jang naan yow mi yaa yem yara yara def ndax di gina la nga naan daanaka yalla ju ndaw nga légui li lu mu ci bokkaale la bokk ci deug deug boy muy ni yow seen wa kër xam nañu waron def jël la jeng la señ boy yóbbu la daara ya ah, jeng la japp la ñu duma la duma ba ngay bëgg de ndax yow nak señ boy nak ma xam la ñaar fu ñu duma de ndax yow booy bu ndaw nga bu fekkee mun mënuñu laa duma nañ ma la wool ma jàpp la yitt la yitt yu métt bala nga dellu te nag sëñ booy yéeni ko bàyyi mi ngi ruur rek di ruur di ruur di ruur dina ruur nag ba dugg fu mu warta dugg ñeen bëgg faa génne te boobaa dina jafe ma dina xamal ñaar mooy sëñ booy mii téer leen ko arrêté téer leen ko arrêté moo xam fu mu yem dégg naa ko nag mu naan moom ci jëmmam moo booy moo te sëñ booy dama laa dégg nga ne sëñ Tuubaa la gënal yàlla gënal la yónent bi gënal la alxuraanul karim bi te yalla ñëpp xam ne ne mooy buur Mouhamadou Rasulullaay gën gi mindeef nabi Vision ginnaaw la nga ne boo la takkalee ak ndomba wala téré da nga mën a dem ci bank sacc loolu moy melaf boy yow mi ku ñeme yalla nga nak señ boy sama way nga way man nga ñeme nga yalla trop ana la ko dal ta nga ànd akum xel ta nga dikkee sam xel naa la xama ñaan ak si ay papam ak yaayam ak wajurum nañ ko téré a sino sinon dinañ ko fooge fuñ ko fekk